waaw ajaratu jërëjëf comme ni ma la ko waxee rek bi ñuy ubbi Dame Mbodj nag aljuma ji ñu génn euh, waa penco Moustapha Diop daf ko dalaloon euh, ci émission euh, boobu ñuy dippee penco mu am nag ay kàddu yu ñu fa ci comme temps bi xoj nañu nañu daw xooli ko daal di dellusiwaat. may commencer par yeewi askan wi. yeewi askan wi bu nu yaakaaree. parce que nañu waxante dëgg élection yi ñu jëm bipolarisation. y a un candidat bu ñu bëgg a ngeem wutal ko ay candidat secondaire Amadou Ba mooy candidat Macky Sall mu wutal ko ay ay candidat secondaire yu ci toftal mooy Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao ak Boun Abdallah ak ñoom seen. les nouveaux opposants mu teg ci mooy opposant yu bees yi nga xam si ñoom naxaata lañ bëgg pour tas bu pour deuxième tour ñu àndaat doo dégg kenn ci ñoom ni deuxième tour du ma ànd ak Amadou Ba su demoon deuxième tour ñoom ñëpp. bu Amadou Ba demoon deuxième tour moom la ñuy voteel ñoo ànd Macky Sall lañ àndal les autres candidats du système ñoo ànd ku may mere mere ma xalifa Sallo ah euh, Malick Gakou et cetera ñoom ñëpp ils son du camp du système yow ma ne dégg du camp du système lu colaa jëm maintenant yeewi askan yeewi askan wi seen taxawaay bii nu am dafa faible li ma gëm mooy bu ñu yaakaaree ne mën nañoo gagné gis nga qui peut le plus peut le moins si Macky Sall réussi jaay doole Ousmane Sonko ba nekkul candidat ñoom ñii nekk yeewi askan wi ñëpp lay jaay doole duñ nekk candidat à part ña xam si nee nañ leen di ngeen nekk candidat parce que jàpp nañ ne mun ñoo yàqal dara Macky Sall mais yeewi askan wi man li ma gëm aujourd'hui dañoo war a renforcer la candidate gis nga nag booy dem élection ci élection bu amee nii enjeu noo mën a foqarte nguur gi ci Macky Sall parce que sénégalais dañu bëgg changement mais changement bi dangay ngay créer les conditions pour mu mën a nekk te créer les conditions pour mu mën a nekk booy opposition bi aujourd'hui à commencer par Yewwi Askan Wi dañu war a préparer wu à renoncer à leur candidature pour être derrière Ousmane Sonko. parce que loolu xamul tax loolu day tax Ousmane Sonko kenn du ko éliminer te gis nga Ousmane Sonko suñ ko éliminer l'opposition sera laminée. d' accord jërëjëf euh, Modou Diouf Omar euh, dégg nga li nga xamante ni ni euh, Dambodj wax na ko mooy dëggal tax mbirum yeewu askan wi seen tasaaroo gi ndax seen groupe parlementaire ba cooy fa am ci diggante Abba mbay ak Birame Souleye Diop ak li mu wax si ñoom Khalifa Sall. Hmm, xam wa xam na waxi daam la waaw daam mën naam dafa xam lañu xamul mais commentaire la def ci benn actualité bu am ci diggante. waa Yewwi Askan Wi gis ni Yewwi bari na ci ñoo xam ne euh, euh, Macky lañuy liggéeyal ñoom Khalifa ak ñoomin seen waaw boo xoolee anam bi ñu demee ci dialogue bi ak dialogue bi ci code électoral bi yenn soppeeku yi ci am yoo xam ne tey jii pour gàllankoor Sonko la euh, ñoom bañuñu ko woon kon tey ji bu ne ñoom ci ñuy gàllankoor Sonko lan bokk waa taxaw kenn di ko weddi bi ñu gisee Sonko am fi ñaari jafe-jafe mooy bi ñu koy doog a jàpp Barthélemy génn ak na mu ca waxee ak ville de Dakar ak nan ca doxalee ci situation boo xam ne Ousmane Sonko dafa nekk ci ay xat-xat nga gis attitude bi mu ci am ak booy dellu ginnaaw mooy liste Yewwi Askan bi ñu annulé woon ak mandataire bi Déthié ak coowal Saliou saar Saliou Sarr ku jege xalifa la ba Ngom boo xoolee dafa génnoon ci jamono yooyu wax ni Saliou saar ñun xam nañ ko ba am nu mu ci waxee mais léegi jamono jooju far ba di wax nga xool jamono di dox di dox di dox day mel ne. Mm. gars yi xalifa yi li leen di jiiñ même bu dul ñoom ñu ngi koy gën di jege. seytaane waxul dëgg mais yàq na xel léegi nag li du xew ca assemblée moom mooy ñaaw na ba noppi rek. Mm, na na gën a ñaaw mais li war a xam man foofu laay tëjee. mooy mm. waa wàllu ñoo soxla Pastef mais Pastef soxlawu leen. kon nan xam ñoom lan mooy seen intérêt. évidemment waaw d' accord sooy bu da ngay dëggal kàddu yi nga xamante ne ni moom la daam muy Khalifa ak ñoom Malick Gakou consort euh, Macky Sall la liggéeyal. waa du wax ni ñoom la ñuy liggéeyal waaye euh, boo gisee image bi ñu jox sénégalais yi. Mm. man du ma dut baaraam ni ñoom la ñuy liggéeyal mais am na lu xew li xew nag dafay xaw a mel ni même boo liggéeyalul waa ji yaa ngi jëf ay actes yuy néewal doole ki muy àndal ndax ñetti at yi ñu weesu yëpp fu Ousmane Sonko waxee bañ ñu ko euh, euh, li nga xam ne mooy appel à wala ñu wax yeneen ba daan ko ci saa yu ko Ousmane Sonko wax ñii muy ñii di xuloo ñoom ñu ngi ci ginnaawam muy wax joo xam ne buñ ci àndul moom it ñoo ko daan ànd di ko waxandoo di ko jëfandoo jamono di dox ba ñu jàpp Ousmane Sonko avant boobu euh, Barthélemy Dias mi nga xam ni man dama doon wax ni moom ak keneen ki décce du ñu mas a war Ousmane Sonko loolu laa daan wax moo tax di Barth demee ma ni man nag mënatuma Euh, euh, def sama pronostic ci wàllu politique parce que dafa mel ni léegi sénégalais ñi ci leer bareetul léegi bu ñu génnee ni kon nag système bi dafa yaatu ñoom ñu calculer ni bu ñu àndandoo woon ci noonu ñu àndandoo ñoom ñëpp xam na ne Ousmane Sonko élection yi midi mu warax ñi nga xam ne ñoo fi nekk te su boobaa Pastef day pose ñëw wane position ci wàllu politique toog te loolu nag jàpp naa ne du arrangé waa xalifa yi du arrangé waa PDS du arrangé ñeneen léegi nag su fekkee jàpp nañu ni engagement yi muy def démb rek envoyé naa kii benn vidéo Ousmane Sonko di ko wax kani euh, bu bis bu ma yàlla joxoon réew mi na ngeen xam ne Sénégalais bépp alal bu ñu sàcc wala suuf wala lu ñu jël jox ko ñeneen lu ñu fa mën a def lu mu rëy rëy dinaa ko jëlaat dellowaat ko sénégal yi léegi su fekkee nag ñooñu ànd ak ñoom am na ci ñoo xam ne am na lu ñu leen di tuumaal mën nañoo xalaat ni ba waa ji ñëwee du baax ci ñoom moo tax ma gëm ni du ma wax ni moom la ñuy liggéeyal mais itamit kuy xeex kuy xeex ak ki lay soo ko liggéeyul it sori ko. sori woo ko. Hmm. ajaratu situation Yewwi Askan Wi ak euh, Dame kàddu yi yëkkati jëmale ci Khalifa Babacar Sall ak euh, Malick Gakou. waaw man de dégg naa tey sax ci suba. Hmm. Aba Aba naka. Aba Mbaye Aba Mbaye dégg naa mu mu ci expliquer mais man dama ne euh, bu fekkee ni da ngeen di ànd. ku nekk na teel a xam jikkoy moroomam wala ku nekk na teel a xam fi ko moroomam toll man loolu laa wax fi mu nekk nii Omar mi ngi koy junj nee na Pastef ñoom ñoo soxla Pastef mais Pastef soxlawu leen Pastef ñoom am nañu seen li ñu li ñu soxla nañ demal seen bopp ku nekk demal sa bopp ku nekk bàyyi li sa baay man loolu rek la non parce que am na loo xamante ni bu commencé di yàqu rek bu ngeen ci avancé mm. day gën a yàqu li xale yi naan ñaaw na na gën a ñaaw mm. loolu laa dégg keroog ci assemblée bi ñuy wax donc mu ngi noonu na ku nekk dem wuti li nga am mm. ayca alaaji ba daam nee na tey bu euh, ama Amadou Ba demoon deuxième tour di nga gis ñu nga xamante ne ni ñu bëri ñun bokkoon ci yow yi ñu dem jàppale ji ko pour mu mën a doon président waa daam li mu wax nii defe naa ni wax nañ ko fii ay yoon yoon fii ci Jometa Taku Show expliqué ko mm-hmm. euh, que ni euh, élection yi coow li li muy bari bari lenn fi am système ak anti système mm-hmm. c'est que boo fi nekkee di jël ay xalifa ak ay masamba ak ma demba di dajale sax dangay ngay sonal sa bopp système anti système système bi mooy ñi lijjanti dem ca assemblée waxtaan ba juboo ba mën a dem ñoo ñooy système bi ñi doon dialogue ñooy système bi ñi demut ca dialogue ba ñooy anti système c'est il faut mbir yi mu leer ci bopp nit ñi ken ni gis nga ku jàpp ni ëllëg si biir maara day taali ñu ne la Amadou Ba dem na deuxième tour nga yaakaar ni anti si waa système bee danañ la jàppale yow mi nekk anti système. Mm. nax nga sa bopp duñ la jàppale système ba lañ jëm. parce que loolu mooy seen arrangement ni réew mi di doxee ñu wax la ko ñu bañ la koo wax dafa baax ci ñoom nii yëf yi demee dafa baax ci ñoom ah, ñi mu baaxut ci ñoom nag mooy anti système bi nga xamante ni bii parce que ñooñu ah, li kii wax nii waaw mais ànd ba xam nga dagg na fi mu doon nii ñee ñoo bëggoon ay poste doon jaamuwaat ay kii gars yi abandonné leen euh, euh, la xew démb assemblée nationale Aba Mbaye moomu di tëb di wax pour te dire que ni système ni ñu bëggee post xam nga anti système dañ leen a xañ poste. Mhm. poste yi ñu waroon am assemblée nationale. léegi poste yooyu poste yooyu kii kii daal di koy for. Euh, nu mu tuddati waa bennoo for ko parce que lii gaa yi def démb man dama cee ànd xam lu tax ma ànd. Mhm. parce que lu tax man may fal béti su ma fa su ma fexee ba réglé waat affaire bi ba jàppale béti ba mu jël post ba béti daal di wëlbatiku ànd ak son yi. mu leer ma ne man noonu lay dem man léegi duma duma ko xañ bëtt mii bu ko defee sooy bu bu foree poste ba sama yoon newu ci mais duma ko jox kii. mais benn ba noppi après muy dem ah walloo ngi nii ñu dugal leen assemblée nationale fu ñu féete. wallu kan moo leen du fii lay ñëw ànd ak Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko waxee lu saf xorom ñu ree boog di ko tàppakar Ousmane masha Allah di wëndeelu ak moom fu ne ñu dem na ñëw sama gox na ñëw sama gox. Aba mbay mii. Aba mbay mii naan ko bi nga ñëwut sama gox. ca laa daanu woon. maanaam dañ lay jaamu Barthélemy xool ko ni mu doon logo sa safa doomu ndey gëmuñu ci dara léegi nag ñooñu tey bu fekkente ni bii tey eh, eh, jàpp nga ni lu doon ni tarafatal ay ni nga gëm ni ñii bés bu élection amee ëllëg si biir ñee la ñuy jàppale nax nga sa bopp nii ñu def ba àndaat noonu rek la ñuy defaat maanaam noonu kese la ñuy defaat donc lii Dame Mbodji wax wax la ju leer nañ man defe naa ni sénégalais yi sax amut ku mu lënt sa bopp nit ñi xam nañ que ni système fi am ak anti système man du ma ne tur diw ak tur diw mais képp kuñ mës ñam ci moo xam nguuru Senghor nguuru Abdoulaye Wade nguuru Abdou Diouf nguuru président Macky Sall képp ku ci mës ñam yaay système kenn man ñeen la kenn laa ci mën a génne muy Thierno Alassane Sall moom ma ko ci waaw ah non xam nga non am na ñe am na ñeneen ñoo xamante man gëm naa ni Euh, ay nit lañ yoo xamante ni bi bokkuñu ci système bi mais les autres ay ñoom Abdourahmane Diouf gëm naa ko gëm naa ñooñu quoi comprendre non non mooy mooy bàyyi système bi nga naan ma bokk système bi xam nga yow da ngay saboté <laughs> xam kii day xam kii day saboté waaye <laughs> xam kii day ah. may ma waay yow mooy farankulaay ci système bi. xam nga même buñ jonn dégg nga li mu wax. ci ñi sàcc yi nee na nee na amul milliard amul milliard mais buñ jonn buñ jonn nee na amul milliard. li am solo li am solo loolu dafa am solo maanaam équipe kii bu nekk nga ne amoo milliard. te nee nga mënoon nga koo am. waaw ah, mooy lim la wax nee na mënoon na ko am aw ma milliard waaye mënoon naa ko am. non aw ma milliard cela ne veut pas dire que amu ko. Hmm. waaw hmm. lim la wax la. waaw waaw lim la wax la. Hmm. parce que fii gars yi dañuy am kii. Eh, eh, eh, yaay gis loo xamante ni bi Omar mën naa kii fële yu ñaan Omar yor na xaalis fekk Omar xaalis su diw la yor hmm. ah waaw peut-être non waaw na rek sol kii bi def leen ko nii def def leen nii fekk na du bi <laughs> <laughs> ngi noonu lii la indi woon tey ci actualité du jour di nuyu nag dàmbooj bu baax baax jox leen di daje suba ak jàmm ci beneen actualité incha allah merci beaucoup ma jigéen Diop Dieng Sall